sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xadimihi wa muqtadina bihim ila yawmi ddin sadid lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid baraa'i wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokku téléspectateur seen télévision Teranga Sénégal TSTV seen mbokk Alioune mbay ci seen émission xayaar Cheikh El Khadim muy dunduk sëriñ bi mbokk yi ñoo leen di nuyu nuyub lislaam te di leen ziyaare tey ñaan yàlla sunu kàddu uh, fekk ñépp ci jàmm bi jaahil xadimi wa izzatil maxdumi sallallahu alayhi wa mbokk émission bii di xayaatu cheikh al xadim muy dunduk sëriñ bi tey danoo ñëw ci sëriñ bi ci boppam ndax xam ngeen ni ñu ngi ci muharram tey de fukki fan ak juróom ñett juróom-ñeent ba ci ashruuna muharram mbokk lolu sa xel day dal di dem ci magal gu mag gog nga xamni moy magalu daru qudus wala magaluk ashruuna muharram waye muy màggalug serigne touba waye mu deggalon ko nak Cheikh Mahamadul mustafa ba ñepp japp ni sax dañuy wax màggalu Cheikh Mahamadul mustafa mbokk yi ñu ziaré ci Cheikh Muntaqa ayadahu Allah wa nasara yalla fi yag lol ci ànd ak wér moom moo joxe ndigal lu reuy ci ren ji di 1446 ndax serigne bi wat ci boromam ñibi Tuubaa 1346 le won 1346 batay ji di 1446 témer lay doon sëriñ bi jox ndigal Cheikh Mouhamadul Mokhtar Cheikh Mouhamadul Mokhtar di khalifa sëñ ah, Cheikh Modou Moustapha di khalifa daru khodous ni sëriñ bi témer at yoy nga xamanteni bi ci la ñibbi toba nañu jangat liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba waye mbokk yi eh, Cheikh Ahmadou Bamba mom nga xamni bi ñibé toba ba légui mu ñibbi këram ndaanaan la lu yàgg daan bi mu ñibbee ci la léppam gën di bërëx bërëxi waaye gën di jëm kaw kon mbokk yi incha allahu rabbi dañu fas yéene def ak yéen fàttalinte fàttalinte gi du ñàkk bis boobu nga xam ne moo amoon ci 1927 ci atu tubaab bi waaye nekk 1346 baren mu am 100 ans ñu nekk ci 1446 ci ci xarit borom bi moo ni fa zakkir fa in nafaati zikra waaye say yazakko man yaxsha wa yatajannabu al atqa waaye wax na fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin moo tax bis boobee ku ko wax sa xel dina dem ci sëriñ bi ñibbi gi mu ñibbi tuubaa waaye sa xel dana dem ci ndénkaane lam dénkoon xalifatul awal muy a cheikh muhammadul mustapha ah Cees gi ñu nekk wala jàll nu ziyaare ci njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gi fi nekk yépp te kenn rek lañ cey tudd mu yóbbaale ñépp muy Cheikh Mouhamadou Lamine moom Serigne Mbacke Madina Cheikh Mouhamadou Moustapha ndeysaan moom mi nga xam ni mu ngi màggal Cheikh Mouhamadou Moustapha fanweeri at ak nangam mbokk yi alxuraan dafa waxoon ni laqad kaana fi xisasihim ibratun li ulil albaab yonent yooyu fi jaaroon day nettali seen jaar-jaar ak waare da cee nekk ci képp ku am xel waaye tey jii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Moustapha mii nuy waxtaane di fat di waajal màggal gi doon ci àjjuma ji mooy jëmm ji nga xamante ni bii bi yàlla dogalee sëriñ bi dem deewaaleeg boroomam dëkkaaleeg boroomam dem ci boroom mu fay ko ab liggéeyam moom la taalibe yi ak njaboot geeg mag ñi dajaloo woon ci jaayanteek moom ibnuhul akbar mu Cheikh Modou Moustapha comme nag mooy ab taawam nekk fi te mat sëkk li mu doon màggal ko wormaal ko daal di nay war ndax sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba moo waxoon ni ku teral lu bokk ci man tedd ba faw waaye ku tedd lu bokk ci man tedd di ba faw tere lu bokk sëñ Tuubaa nak jang xasaayit gis mbubum sëñ war wormaal ko barab bu mu jaar waye la ci gëna a nak moy nituk sëñ Tuubaa ndax wala khad karamna bani adam amalna fil bahri wal bahri wa razana min at-tayyibaati waaye sun borom sax mo wax lolu fa man yuazim fa wa lahu inda rabbihi képp koo xam ni danga warmal magal lu yalla magal yow yaa cee li nga xam ne loolu ngay def mooy gën ci yow loolu ngay def mooy gën ci yow moo taxit nag daa waxoon ni sunu borom màggal na ko ci kéemtalaayu ak màggam Cheikh Modou Moustapha nag ak Daaru Xuduus buñ koy waxtaane xam nga jëmm ji rek dalay delloo ci innamal ijlaalu alimil amal ijlaalu rabbil arshi fi ma qad nuqil boroom xam-xam rek boo ko màggalee dañ koy jappé ni da nga magal sun borom magal borom xam-xam ak magal sun borom moy magal sun borom ah Cheikh Amadou Moustapha nak don jëm jo xam ni sëñ Cheikh Ahmadou Bamba mo waxon ni sama njabot gi day don gi ma sallallahu Alaihi Wasallam? neena xajul ci jenn jëm way ma don lepp yonent bi mo waralon mu seddelé yonent bobu mu don cër ya. ci njabootam gi ñuy tudde njaboot ci nun waaye bi mu waxee loolu yi ba noppiit si Cheikh mustafaa mii daf daan wax naan moom de mooy Muhammadu Rasulullahi xarfan bi xarfin mu duppee ko ko muy aw turandoom xam naa loolu dañ ci del siwaat waaye mbokk yi weeru tam xarit buñ ci tollee nii nga xam ne mooy màggalu mu xaram Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba ko ni ko Mouhamadul Moustapha saa yu bis bi ñëwatee dee ma dajaleel sama mbooloo bis bi ma gënal sama bis mooy bis bi may dem ci sunu borom ba fay ma sama liggéey allahumma ijal a xayra ayaami yow ma alqaak loolu la waxoon ca Mawaahibur Rahmaan waaye loolu nekk ci muharram nga xam ni muharram toogoon naa fi wax ni bokk na cax cër yi ñu ci am mooy imaamul akbar Cheikh Abdoul Xaadar waye tay ji ki nga xamanteni bi moy Cheikh Modou Moustapha ci euh, Ashura ci euh, Ashura Muharram ci la feñ waye sëñ Cheikh Ahmadou Bamba sax nak li gëna leunk ci li wër wax nañ ci ñaar fukki fan yi nga xamni mom lañuy maggal ci la feñ waye nak li wër moy dal ci la delu ci boromam nga xamni bo ci Irwa Nadim da ngay fekk way yu ñu indi قد ولد الخديم من شرع شريعة المختار عام الشرع سي محمد لمي جوب inde way ni daan ni kilifa gi way daa wax ni moom ma ngay feeñ jamono moom ki nga xam ne moo leeral sunu kañu tànn muy sallallahu alayhi wa sallam ama sharaa waaye summa madaali rabbihi ama shumus nee na mu dellu ci boroomam 1346 mooy ama shumus وعمره عين ودال كالشموس نينا دندم غا عين لا اك دال كالشموس 74 75 وخيل ان عمره معال نين ام ني وخات ني 72 معال نيلتل منا وسرك المعال واي مو داني نك ليله الاربعاء في المحرم بعد 20 مرر فلتعلمي مو ني بسب الاربعاء تي محرم ginnaaw lu jiitu ñaar fukk ya nee na ci la dem ci suñu borom na nga xam loole mbokk yi màggal googu moo doon ajjuma waaye ren doxe bi mu am mooy ko doon Cheikh Ahmadou Bamba santan mu làqu ci bëti nit ñi ci zahir amoon lum fi samp waaye Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér daan ni loolu nañ ko jàngat li fi sëriñ bi bàyyi waaye mbokk yi kon dinaa fàttali muharram 1346 wax nañu ni bisub samedi da fukki fan ak juróom benn ci weeru tamxarit woowee atum tubaab 1927 ci njaareem sëriñ bi dafa digle na mbooloo mi julli si tàkkusaan ci jumaay njaareem ci bi ñu jullee ba sëlmal wax nañ ni na ca lam fa def ku jàng alquran ca kaw kilifa ga jàng alquran ca kaw sootul fatiha bam jeex sëriñ bi ni ko wéyal mu daal di tàmbali alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ba yegg ci muflixoon sëñ bi ni ko taxawal mu taxaw mu daan ne ko hazihi sifatul muminin daan ni lii mooy melaw aw jullit yi mbokk yi nag loolu xam naa ni kenn ku ne bu jàngee lool rek dana xam lu muy jàngat alif lam mim zalikal kitab ba ci muflixoon sëriñ bi wax na keroog ca tamxarit jëm mujj tamxarit ca weer woowee ca fukki fan ak juróom wala juróom-benn daal ni loolee alif lam mim zalikal kitab laa rayba fiihi hudan boo ko jàngee ba ci muflixoon loolu mooy melaw jullit yi daal jànkat alquran boobu wéyal nee na mu wéy di jàng inna allazina kafaru sawaanu alayhim anzartum an lam tunzirhum laa yuminuun xatama allahu ala xulubihim wa xatama allahu ala xulubihim wa ala asamihim wa ala absaarihim gishawa ba yegg ci wa maa yuq ba yegg foofee wa maa yuqaadiuuna illa anfusahum wa maa yashcuruun mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko loolu mooy melaw mooy mooy melaw yéeféer yi waaw waaw loolu mooy melaw ñi nga xamante ni bii dañoo dañoo wedd suñu boroom waaye mag ma mu jàng ba may soroon ji jeex mu ne ko mu ne ko jàngaatal mu jàng wa mina naasi man yaqul amanna billahi wa yawmil axir wa ma hum bi muminin yuxaadiuuna allaha wallazina amanu wa ma yuxaadiu illa anfusahum wa ma soroon jooju nag foofu la taxaw ni ko loolu mooy melow aw yéeféeri loolu mbokk yi dama koy bàyyi mu fassiru nay waaye damay wax rek jataayu sëriñ bi waaye foofee sëriñ bi ci aaya ji ci la waxee nag ni ñii ñooy melaw naafiq yi waaye boobee nga xam ni ci la wax mu waar nit ñi dénk leen dénkaanem yooyee nga xam ni dafa bokk waxoon ni bu kenn sàkkootee gis ma nga xam ni laaj na ci jataay ba tey la ban bis ñu ne ko fukk ak juróom benn ci weer wi mu daal di wax yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum wafalul xayra jooju nga xam ne nee na ay yéen nit ñi jaamu seen boroom te ngeen aw yiw ndax ngeen mucc nga xam ni aaxiru waazuhu ngi noonu waare gi mujj waare mu ngi noonu am na ko indi ci yeneen yax wax na ni foofu amartukum bi imsaaki al ma ngi len digal na ngeen japp ci seen gémmiñ waluzumi buyutikum sax ci seen keur waaye bari lu ngeen di ñaan bari lu ngeen di saraxé bari lu ngeen di julli lolé don tagato go xamni ci la serigne bi tagato yegg ci bir keur ba ci bisib gaaw julli ci jakkay keur ga timis waaye julli fa ge nga xamni jullem gi mujju bisub dimanche boobulee ca fajar <clears throat> nga xam ni loolu booba am na lu mu digle waaye am na lu mu nar nga xamante ni bii nag moom moomee di sëriñ bi fi mu yegsee fii yegg julli ndeysaan suba ak dimanche ga ca biir kër ga kon fukki fan ak juróom ñett waaye mbokk yi bi nga xamante ni bii ndeysaan lii am na ci mu xaram jooju nga xam ne bi yàlla dogalee sëriñ bi jëmm ji tuxu ndax daa waxoon ni ah man de duma koy faatu kullu nafsin zaiqatin mawtu ila siwa nafsi waaye jëmm ji dana tuxu gis naa ko mu naan saaroo gi dootul faatu man bàmba damay tuxu di dem fu yaatu waaye mbokk yi Cheikh Modou Moustapha mii nag moo ko yëg ca ñaaxeen muy fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñaar ci muharram nga xam ne sëñ Moussa kane ne yàlla dal di téléphoné dal di koy téléphoné fa ñaaxeen mu ne jëleñ ñi bàyyi bàyyu ndaw ya ñëw leen yàlla dal di koy téléphoné fa ñaaxeen mu ne jëleñ ni bàyyi ndaw ya ñëw leen Cheikh Modou Moustapha dañuy wax ni. ci fukk fan ak juroom ñaar ci muharram ji la toog 1346 di le ndékki ni mag ñi wër ko ca ñaaxeen waaye mu rek kon kuddu fil ba na ndeysaan mu daal di jug jéggi mag ñi ndeysaan dem taxaw ca ron garbu mbégge ca tóokóor ba ku ñu wax sëñ Moor Jàndam Jóob daal di koy dab nga xam ne mooy maamu sëriñ Soxna Lo ndeysaan mu wax ak moom la mu wax ak moom mu ne ko day daa am loo xam ni lu mu ma wax dëgg la waaye daf ma waxoon ni ma wala daf maa wax ni ma su ma amee ñeent fukki at du ma amati kilifa ci kaw suuf dootuma gis ku ma yilif ci kaw suuf te sama ñeen fukki at mat na teg ba teg ayu bis ci la yëge lam yëg mooy lii sëñ Musaa Ka wax dellusiwaat ci jataay ba dénk mag ñi macha allah digal len waaye nak daal di khas ni len day dem toba, bi dem toba nak jarna na surra jar nayde jar tindodi kel, kayal ci ahmadu xureyja ñu ne ko dafa dem ci ay tola mu bind bataaxal bàyyi fa egg ñaaxen rombo darul muhti wax nañ ñi daarul moxti googu fa la rom seigne Abdullah job seigne abdullahi jóob lewna na ñaaxen nga xamni eh, ñaaxen goge Cheikh Modou Moustapha sëñ maam Cheikh Anta baayam bu ndaw moo ko ko joxoon ci 1922 waaye bi mu ñëwee ñu xibaar ko mu kontaan sama taaw bi ñëw na mu bëgg ko téye yendu waaye mu ne xamal ko ni dafay jàll day dem njaareem mu sàkku ci moom mu fanaan waaye maam Cheikh Anta jox ko fa saako dugub ak xàbboon ni ko kon mooy si añ gannaaw boo yendoon añ añ baa ngi noonee sëñ si Amadou Moustapha nag yegg njaareem ndeysaan woo sëñ Mouhamadou Lamine Diop ak sëñ Mokhtar Sylla nga xam ni loolee ñoom ñooñee nga xam ni ñoo nekkoon ak sëriñ bi yegg ba mu leen woowee ñu xibaar ko boo demee ci nettalib sëriñ Cheikh Fat Tàkko jóob loolu dana am bokk na ci la ñuy wax mooy Ibnu Ammar mom mu mujj dugg ca kessuk serigne ba dem rooti nga xam bi serigne bi jógee ci ay tankam la jaar fekk mu wis ni ba yeggal waye la ca xew yooyu yep dañuy jaar rek ci magal gi ni mu rëyee bis bi Cheikh omar mustafa ñew talu làmp ba ca bis bobé di bisup euh, talata ba waye nee na mu ngi fekk jëmuju tedd ji mu ne ci diggante ñaari sajaada yu fees dell ak ay téere waaw waaw mu ne ci seen diggante téere yi ne ci kanamam ne ci gannaawam waaye naka la yegsi nuyoo kenn fayu ko nee na mu daal di ubbi bunt ba jàll gis jëmm ja di bës tànk yi waaye nee bi mu yegsee ba ci dënn bi la dégg yaa ayatuha nafsul mutmaina irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxuli fi ibaadi wa duxuli jannati ca suratul fajri wala waaw bis boobu di bisub altine boobee nga xam ni ca zawal ja wax nañ ni dafa ngelaw ngelaw lu tar taw taw bu bari ba ñëpp a xam ni am na yëngu-yëngu boo xamante ni bi xew na ndeke booba loolee loolu lay loolu lay xibaar mbokk yi kon foofee nag la Cheikh Mouhamadoul Moustapha yekni lako la ko baayam waxoon egsi ndax bo amé ñeen fukki at dootu am kilifa ci kaw suuf mom Cheikh Modou Moustapha mo netali serigne bi ci njaarem da ko bis bam ñew mu ne ko Mouhamadou Moustapha jot lima ma satala googee Cheikh Modou fa neena mani beret dem songu satala gi ni ko beret ndax serigne bi ku mu da nga da nga bekk and ak tek sa warte waaye ne bi satala rek ab buntu daf ma top nek da ca buntu ma nee na ma delloowaat ca satalaga dem wuti xeer wu dëgër ñëw wéer ko ca bunt ba yëkkati satalaga jox ko baax ki ma ñëw mu ne ma Mouhadou Moustapha noo def ak bunt bi mu ne ma dama ni ca satala bunt bi topp ma mu ne ko nga def nan mu ne ko ma dem wuti lu ko wuutu wéer ko ca indi la satala gi mu ne ko hakaza Mouhadou Moustapha mbir de bala nga ko faa jële lu ne lu ne bala nga ko faa jële da nga ko wutal kuutaay waaw da ko junj ni ko kon man damay dem waaye yow mii mat nga kuutaay mbokk yi loolu diggante Cheikh Modou Moustapha la ak sëriñ bi waaye tubaab bi wax nañ ni woo nañ Cheikh Modou Moustapha ci njaareem tubaab bi duñ bàyyi te sëñ Tuubaa ay noonu jamonoom danoo bi xat sunu boroom ko ci ñoom ñu téye yu bari ba résidence surveillée ci njaareem di ko surveillé waaye bis ñu woolu uh, Cheikh Modou Moustapha mu ñëw ñu ne ko ñu de sawaa ji xam nañu du faatu immortel daal moom la waaye gis nañ ñi yonente yi kenn gisatu leen te gis nañ it sawarte gi ak léegeeg génn gi wax daal seeni wax yi njàngat waaye ni ko danoo bëgg nag comme yaay taawam moom bu yàlla defoon mu jóge fii ndax moom yàlla rek ko fi mën a jëlee noonu fu lu ne def nañ ko ko ba gëm nañu sax du faatu su ko suñu boroom jëlee dañoo bëggoon jëmmam joojee ñun mosuñoo gis jëmm ju mel noonu dañoo programme yóbbu ko Lyon ca France yóbbu ko ca musée yi ndax mosuñoo gis ku mel noonu mbokk gis nga ñun li ñuy wax tubaab yi ñoo ñu ko njëkk a wax foofu mosuñoo gis jëmm ju mel ni Cheikh Amadou Bamba moo tax ñu bëgg koo yóbbu Lyon bu fi jógee exposé ko suñu musée yooyee Cheikh Amadou nee na ah ma ànd ak tàngoor rek waaye sëñ bi yëg ko ci baatin woolu mu ma ñëw mu ne Mouhamadou Moustapha ah non non naankati saxaar yooye nee na ma ni cell rek nee na mu ne ma ndigal la waxal nee na mu ne ko ah loolu de lii lañ wax waaye mu ne ko Mor Moustapha day tubaab yi nasaraan yii takk nañ ma sëf nañ ma loolu def nañ ma ko war ma rekk leen dese waaye Mor Moustapha day digal naa la bis boobu ñuy wax may dem ci sama borom digal naa la. nanga xam ni Touba rek mooy sama dëkkuwaay tuubaa te loolu ñaan naa ko suñu borom ba mu defal ma ko loolee ñaan naa ko suñu borom ba suñu borom defal ma ko sëñ bi daa waxoon ne akramani rabbi bilaa bi bilaa xuruji badani min watani li nafi ahlil muduni akramani rabbi bilaa xuruji badani min watani li nafi ahlil muduni yàlla suñu borom tere na ma sama ruu gi génnee sama jëmm ci rew mi la jëm ji dess waye loolu lutax moy li nafi ahlil mudri ngir mu jariñ mu jariñ rew mi nekku sëñ tuba moy jariñ rew mi fiñ ñu toll ndeysaan waaye foofee Cheikh Modou Moustapha ngok wax nañ ni Cheikh Modou Moustapha sëriñ bi wonako bis denk ko ci benn jotaay juromi ndénkaane nga xam dañuy wax ni loolu benn bu ci ne rek doyon na khilaf ak Cheikh Modou Moustapha mbokk yi xam ngeen waxtaan yi dama koy dama koy lëm rek ngir barkeelu ci bis bu tedd bi bis bu màgg bi lim ko jëkk a dénk Mooru Moustapha jëmm jii de bu fi jógee rabbi stajib waltu kammin ma nawaytu la laa tuubaa rek waaw waaw yasir ruju'i li tuubaa ya Moodu Moustapha su ma fi jógee jëmm ji tuubaa rek lay dëkk Moodu Moustapha mu ne Mbàkke mu ne ko sa rakk yii nga féete bu kenn jambat bu fi seigne touba nekkon du ma jëfandikoo ba fi bàyyi nekkoon sëñ Tuubaa amul ta lepp lépp ay taalibeem lañu waye Modou mustapha sama barab bi nga xamanteni bi fele jëm ji nekk sa yu ñëwé digal na la bis bobu bu delsé nag ma dajalé sama mbooloo ndax mbooleem suñu borom ñum sak nyu daanuñu nyu ñëw di ma siar si ngir ñee ma ñee kon dajalé ma sama mbooloo Modou mustapha wote magal gi di tay ji lu ne la ko jaral jaraloon ci kaw suuf waaye mu digal ko ci jataay ba ne ko sama jataay bii bu ko kenn toogee ku koo xam ne dafa bokk ci man sama njaboot gi rek ndax def naa ci ñoom loo xam ne newul ci neen ay nit lañ waaye def naa ci ñoom loo xam ne nekkul ci nit ñi bi ci des ma ne ko sama xilaafa moom na sama kuutaay dama dëkk bi dëkk bi bu kenn yilif ku koo xamante ni bi dafa bokk ci man mbokk yi loolu di nga ay ndénkaane loo xamante ni bi wax nañ ñi maanaam si sëriñ maam Cerno Ibra Faati borom Daaru Muxti ci yii la séeréer yi moom moom moom Cheikh Modou Moustapha mat na wax nañ ni keroog bi fi sëriñ bi jógee ba mu ñëw ak taxawaay yu yu taxaw nga xam ni xirte googee mag ñi xéroon keroog mbépp keroog mbépp ngoon nga loolu la sëñ bi digle woon nga xamni ne yi dañuy wax ne Cheikh Amadou mustapha jël nako def ko ci maxtoom mu nek lo xam fu mu jëm te ko fu yob ngir bañ ko faté ndax ndigali sëñ bi la nga xamanteni bi Cheikh Amadou mustapha bok na ci limu def moy li ko sëriñ bi e, denk fukki at ak jurom ñaar 17 ans yim ko wuutu wané na ci kéemtalaayu kàttanam nga xamni bu dul won 39 45 sëñ Modou Moustapha la ñuy nettali moo ubbi jumaay Tuubaa waaye crise mondiale am guerre mondiale am ci réew mi 39 45 liggéey ba taxaw ba Cheikh Modou Moustapha ubbi ko waaye Serigne Thierno Gelongel wax na lu baree bare ci Cheikh Modou Moustapha waaye raqam yii sëñ Tuubaa bàyyi woon ko ku ci ne def na leen ni mu mel tey boo demee défoncé ca Ndakaaru ñoom xaw ma kan waaye sëñ Tuubaa rek la sant liggéey bu waroon dem ay at. nga liggéey ko ci ñetti at ak ay weer te six mois la woon loolee njàmbaar Cheikh Modou Moustapha la ak lam ca daj yëpp mbokk yi kon mel na ni ah ma ma ñëw ci kan mooy Cheikh Modou Moustapha xam nga Cheikh Modou Moustapha wax naa ci lu bare bare bare bare bare siiratoom day jàmbaar dina dellusiwaat nag ci injazaatam mooy yi nga xam ni moom la fi bàyyi ba tey bis bii di bisub Serigne Touba waaye faaw ñu delloo ci njukkal Cheikh Modou Moustapha mbokk yi Cheikh Modou Moustapha waxtaane ko ku ko def te nit ñi dégg la danga koo bëgg te moom day liggéeyal na yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba liggéey boo xam ne boo ëllëgee fa ko yàllay képp ku ko bëgg bu ànd ak sa mbir dana baax almar uma aman ahabba mbokk yi waxtaane Cheikh Ahmadou Moustapha dana tax nit roy ko sama mag jamono wax ne Cheikh Ahmadou Moustapha benn jikkoom ku ko yàlla séddee rek sa kër baay du tas taaw bu ko yàlla séddee jikkoom sa kër baay du tas mukk innal muhibba liman yuhibbu mutiya ndax nit sax kumu mu bëgg dana ko top lool waye mbokk yi ñu roy ci bu baaxa a baax ah yalla nak mbooleem nit ñu baax ñi ñu tudd ñepp ci rew mi ku ci ne yalla suñu borom daf lay tanal askan wu set wu baax bu kenn amul lu muy xabat nga feeñ ca Seex Moodu Mustafaa nag ak kokki rek ñoko sekk ndam ak kokki rek ndax dañuy wax ni moom dafa askano ci ñetti néeg yi nga xamante ni bii ndeysaan ci ngor la ngeen xam ak diine te réew mi bari na kilifa diine ñu fiy tudd rek ci néeg yi rek dañu soqi ko ka ca njëkk mooy Maxtaar Ndumbe saa xeweer Fatma Ali Seneba waaye bi mu feeñee fii nag ci wàllu soxna Aminata Lo mii waajuram wu jigéen rawsul wara Cheikh Ahmadou Bamba ñëw nag dàmbewaat mbir ba banu bàll axmaarun fal ashyaahu anjumun waaye wa ahmaduhum shamsun anaarat lana tuuba mbokk yi kon waajur wi soxna waajuru jigéen bi mooy soxna Aminata Lo almardiya soxna Aminata Lo xari maam Diop Njaga Isa Moodu Faako jo Maxtaar Ndumbe kon mooy maami Cheikh Moodu Moustapha waaye xari maam Diop Aminta Diop Aminta yàlla Ali Sene ba tuddoon naa la ko léegi waaye nga waxaat xari maam Diop Aminata Diop saa xewar Fatma man dama la waxone la muxtar Ndumbe Cheikh Khayr Fatma Ali Sene ba tekantal ba ngok Cheikh Modou Moustapha don jëm jo xamanteni bi fagn la fan la feñe jamono mu ngi feñe jamono daru salam gi mom Cheikh Anta waaw ci 1306 ci xarit fukki fani tam xarit yawma Ashura ci la Cheikh Modou Moustapha feñ loolu mbokk yi mu ngi dëppoog 17 septembre 1888 cheikh modou moustapha ak touba massé cheikh modou moustapha ak touba ñoo massé deglu ma wax la Seigne moussa ka li daf ni deglu ma wax la yow atum juddom ba saay nopp ama was wasasin tarikh ba deglu ma wax la yow atum juddom ma saay nopp ama wasasin tarikh ba daru salam la yow ma asura mo don ganam ga boba la mirah waaw bi muy feeñ jamono da fek ndeysaan sëriñ bi dugg xëlwa ci Tuubaa nga wax ne ñi ku ñu wax sëñ sàmba Faati Buso moom la maam Cerno wax mu dem waxi ko sëriñ bi am ñu wax ni Seydou euh, sëriñ Xondu Ndooy moomu moo ko dem moo ko jotale xibaar bi waaye sëriñ bi yónni ni ñu ko tudd Cheikh Modou Moussa tudd nañ ko ñaari yoon borom saam tuddee ko tuddee ko boppam sëñ Tuubaa ñu ni Muhammadu Rasulullahi ne ko sëñ Moussa Ka nettalee mu feeñ kon ci xar baax yu tedd yi takk wiinu ilmiim nag fi mu jaar ci xam-xam alxuraanam sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba moo ko dalal moo ko Cheikh Modou Fadal sëñ Omar Mbacke Gelongel ci Daaru Rahman mooy te kër sëñ Soyibu ci ndimb googee la toog tàmbali leen baa ba egg suurtu Yaasin mu dem ci tukki bi waaye ba muy dem nag ci Mbacke Baari la leen jël jox leen maam Cerno ndeysaan ngir mu yar leen waaye mbokk yi sëriñ daara ni ñuy bàyyi xel keroog suñ tubaab bi muy joxe njabootam googee di dem ci géej gi dafa digaloon maam na ni ko bu nu buun bu ñu saalañ bu nu tër na ko sëriñ daara yi bàyyi xel ak ndonga daara yi buun mooy bu ñu gëlee lekk yàpp saalañ mooy ñu bu ñu bu ñu bu seen bopp karaw gi jaxasoo waaw ñu toppatoo kawar karaw yi waaye bu ñu tëre nag mooy bu ñu tilim ba ba teg der loolee tax moom ci loxo Cheikh Ibra Faati borom Daaru Muxti mu jël leen jox leen sëñ Abdourahman Lo nga xam ne Cheikh Modou Moustapha mii borom taxawaay bu jekk bi borom taar bii ci at yu dan yàlla ubbi dënnam mu mën alquran xifzan tajwidan wa kitabatan Cheikh Modou Moustapha bi ko mënee nag wax nañ ci fukki atam rek ci le bind kamil kaamilu Cheikh Modou mustapha mi ngi fekk seigne Touba ci ci geej gi bi seigne bi ne ci geej gi fa la ko fekk nga xamni ni bind na ci loxo bopam mokkal alcorane ba bind kamil ñu yonne ko seigne Touba ko ñu Abdullahi nur moko yonne Cheikh ibrahim Faati joxo mu yonne ko kon alcorane ji mom fofu doyna yam ci Cheikh Modou mustapha borom Darou khudus ay borom Touba mbokk yi mu tambali nak dal al xam-xam. Cheikh Ibra Faati di jàng ci moom di xëy ci Maam Mor Jaara léeg-léeg mu gont Cheikh Ibra Faati waaye ba man di xam-xam yépp Cheikh Modou Moustapha dajale ko ndax ñooñu ñoo rew ci réew mi waaye nekkoon nitu suuf yi nekkoon koo xam ni day bànneexoo jàng xam-xam nit ñu baax ñi waaye am yitte ju kawe ca boobu jamono waaye daan daan roy borom yitte yi gën a kawe ya fa la tegoon bëtam te bokk na ci lii teg leen borom lii tegte leen ni borom yitte ju kawe la xolal bataaxal bi mu bàyyi bindoon ko sëriñ ma sàmba baayam bu ndaw xam nga lu mu ko doon laaj ma gàttal ko mbokk yi ndax nit ab jaam bu demee ba toll ci deewaale ak boroomam ndax moom dong lay doon ak boroomam bilaa waasitati muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi dina ci ñëwam déet dina fekk jataay ba waaye sëñ Masamba dellu ko ni ko ab jaam saa yu tollee foofu bëgg a deewaale ak boromam ci Muhammad Rasulullaay jaar te Muhammad Rasulullaay day teewu jotaay bi loolu nag dama ko wóolam ku dem ca bataaxalee da nga fekk na ma ko waxee. mbokk yi Cheikh Amadou Moustapha mii ma wax la ne la ñeent fukki atam la sëñ Tuubaa ne ko dootu am kilifa yaay tawu liggéey bi bi sëñ Tuubaa ñibbi ci géej gi dafa fekk Cheikh Ibra Faati mboolem la mu ko digaloon ci ñoom mu def ko. mu fekk Cheikh Modou Moustapha bi axsani wajhin wa axsani hayatin nga xam ne xam-xam bi teggin yi ak diini ji fugguraas geeg mu dul tegeeg fulla geeg fayda geeg am jom gi lépp fekk na Cheikh Ibra Fall def loole te loolee euh, suñu suñu sëriñ ba Cheikh Mamadou Fadal moom seexam boobee nga xam ne kii daa feeñ ci muharram kii feeñ ci rajab ñu bokk menn at mi mooy 1888 nee na sunu baay Cerno daf ñoo jàngal bañu ñu ar mu yar ñu ba ni neur ma ngi ne nak ñaar yoy ko ko def jarul mu yeñu bañ ni jar ndax kuñ jangal ba nga ni ar yar la ba nga ni neur ye la ba nga ni jar mom jaruko ndax da nga yew ndaysan motax tax señ musa kané na ba Bamba fi daru manan fukki at ak juróom la am di bawan ba Bamba ñibisé fa daru manan fukki at ak juróom la am di bawan keroog la tambalé muritu baye ba ba jek sa sin wam sa sin tarikh ba jek sa sin ba euh, wam sa sin bi fi sin bi jóge Cheikh Modou Moustapha laxasaayu di top Cheikh Ahmadou Bamba mbok yi nak euh, takko gi mu takko nak serigne bi bi serigne bi jógee ci geej gi darul mil 1321 1300 1903 ba ni mu wate ganar nga xamni nek nekk na foofu taqoog mom di bolé di jang di liggéey serigne bi bu amé ak féex mo len di jangalal bopam waye ñuy dem ci borom xam-xam yi fa magoon di tank ci ñom seen xam-xam nga xam dal mbolem place yi ngay deg ñu ne Cheikh Amadou Bamba jaar nako ci geej gi Sarsara Xaraariya Jaraariya Birul khair ci ewatul may fofé fep rek and na ko Cheikh Modou mustapha ba nim ñibisé ci rew mi 1902 dem nek ci yeen ba nek fa 1907 mu ko and ak taw bi di Cheikh Modou mustapha nga xamni ndeysaan ñeenti ati sëñ Tuubaa yi mu def ci Céyeen ca la nekk waaye mel ni jeexitati murit saadix yi nekk ci moom nga xam ni foo ko fekk li muy doon doon taaw waajurum wi ñëpp yaakaar ko laxasaay gi ci ndigg la lay nekk ak naawal gi muy sol fu mu toll ak boppu jaxasoo bi ba foofee la ko sëñ Tuubaa ni ko Moodu Mustafaa sàmmelo kan wi loo ci jublu mu ne ko dama bëgg a doon sa taalibe boo gërëm mu ne ko làq nga sama ngërëm waaye dama dangaa bokk ci ñi nga xam ne dama leen di liggéeyloo ci al insaniyatu mooy ak nite wala ak chariantu daal mooy nit koo xam ne daal da nga neex a xool da maanaam daal ëppal gi lii maanaam moo tax melokaan wi ñun ñëpp nañ ko jàng ndeysaan sëñ Modou Moustapha nag tarbiya gii may wax da daan wax ni sëñ Tuubaa ma jur dégg naa ngërëmam waaye jub moo ma doy juba ma doy waaye daana wax ni lu fi waaye def ba seex bi nga koy def maag yow ko ànd mu ëppale la njuréel gi waaw oh, moo tax taaw bu ne doomu sëriñ bu ne nag war naa dégg loolu sëñ Tuubaa ma jur dégg naa ngërëm moom juba ma doy waaye lu fi waaye def ba seex bi nga koy def maag yow ko ànd mu ëppale la njuréel gi moo tax nag sëñ bi ci jamono yi mu ko daan dénk mu doonoon koo xam ni ndeysaan ca Ceyeen googee sëñ bi daan ko yónni Kajoor daan ko yónni fu ne loolu mu Moussa indi na ko waaye léeg-léeg mu bind dénkaane di ko dénk laa tan saani yàlla daa kuli layaat fa inna tajlibu afiyaat tajlibu aflal ayaad mu nekkoon jëmm joo xam ni jëmm ju tedd ku koo xam ne boo ko xoolee jikko ya lépp nekk ci moom nga xam ne daal loolu imam Buseyri waxoon alafa nusuk woon ibaatu xalwa tiflan wax kasaan nu jobaaw loolu dafa feeñ ci Cheikh Modou Moustapha waaye kon dañoo jub ci màggal gi naa dellusiwaat ci juróom benn yi nga xam ne def na ko incha allah benn moy len li mu li doyon ci xilaafaam 1927 ba 1945 jëmmi seigne touba ji mu jël yóbbu touba te xat dammut loolu rek doyon na ak xilaafaam te loolu seigne bi neena moy jëriñ rew mi waye gis nga yoonu sahar defar train te bi ngay defar train yow train bi defaroo ko ngir commerce dang ko defar ngir tabax juma première fois Cheikh Modou Moustapha àdduna bi nit nee kenn benn nit ku musa taxaw. taxawal ab raay musta am Cheikh Modou Moustapha ci la njëkk ci la mujj waaye bokk na ci jumaa ji nga xam ne da koo taxaw muy jumaay Touba ji nga xam ni boo musaane ne ci biir bi mu fi bàyyee jumaa ji ku ne ci biir ñi ci biti duñ la gis ba ci fenêtre yi génn na waaye nja njabootug sëriñ bii ñi mu bàyyi ka a mujj muy Cheikh Modou Mourtada soxna May mu taxaw leen ba soxna May daa wax naan moom bi mu gimmee la xam ni Cheikh Modou Cheikh Amadou Bamba rek bu xër waaye rërul bi mu jee ci tarbiya ak li mu defar ci réew loolu yaakaar naa ni lu am am solo la bu ko defee mbokk yi fi ñuy daaneele émission bi xam naa ni ay jataay yu bari la doon mooy place bi nga xam ni fa la ñuy màggale màggal bi Tuubaa gépp la nag àddina sépp mais Daaru Xuddoos Daaru Xuddoos dëkk la boo xam ne sëñ bi da koo bëggoon lool nga xam ne boo demee ci daal ko dañuy wax bayti bokk na ci liy wane ni màggaayu dëkk boobu Daaru Xuddoos mooy sëriñ bi da ko sos ci 1888 Tuubaa juróom-ñaari juróomi at yëpp nee nañ Daaru Xudoos la ko def ba mille mille neuf cent quatre-vingt-huit ba mille huit cent quatre-vingt-dix Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi foofee ba ci des mooy sëñ bi daf koo bëggoon lool ndax lan mooy ci la gisee yoonu géejam gi foofee fa la ko jundullaahil kiram fekk ànd ak Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam sëñ bi daal moo ñu ko nettali nee na mu def signature contrat wu yoonu géej gi ba tukki tukkee bi nga xam ni sérité bi ñun ñëpp ci la ñuy xewlu waaye fonk gi mu foogoon looloo taxoon mu jëloon sëriñ Daaru Assane Ndiaye dénk ko dëkk boobee waaye gis nga jàkk jàkka joojee nee na ah, ndeysaan lu bare bare bari sëñ bi wax na ko ci Daaru Xudoos nga xamante ni bi nee na daf koo bëgg ndax lan mooy bëgg gi mu ko bëggoon sax nit ñi fekk guñ ko ran fekk te mu doon këru déewaale ak boromam ci la sa sewoon Daaru Rahman ngir yóbbu fa ñooñee nga xam ne nee na bokk na ci jagleeg Daaru Xudoos Iblis xamul buntu bayti xamul buntu Daaru Xudoos té waxoon na it ko am bakkar do fa dugg kon magal gi ku fa dem del ziaré beuti motax eh, señ eh, señ Touba musna nit musna ko ni damaa demoon Touba muné ko ndax egg nga dal xus muné ko dem muné ko yow demoo Touba nga xamni ni eh, dal barab la bo xamni barab bu mata ziaré la kon nak mbokk yi bis bobé nga xamanteni bi moy mo bis bi señ bi dem wuy ju boromam ñu bayiko ko xel bu baaxa baaxa baax a baax ñaan yàlla sunu borom lu wat aljuma ji nga xamni mom la tombel ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Cheikh Modou Moustapha mu ngoog liñ ci waroon wax bari na lool waaye xam ngeen ni xajul ci benn jataay ñu ziyaare xalifaam Cheikh Mouhamadul Muxtaar waaye ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér bu ko defee mbokk yi suñu mbokk góor Serigne Gora Diobaye Alaaji Gora Diobaye nag ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax W3S macha allah rabbi xam naa nu ngi koy séentu nag ci ñu sponsorisé émission yuy dem. tuddee ko jataayu jataayu safar wala jata wàccaayu màggal loolu ñu bëgg koo amal fii nag ci TSTV Serigne Gora yaag agence boobu xam ne waa kër Serigne Saliou Mbacké la agence de voyage boobee ñu ngi leen ci woo ci sponsorisation yooyu mbokk yi di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dolli ñëpp jàmm dolli ñëpp tawféex xam naa lu bokk nag waajal safar gi waajal màggal gi incha allah fa yéene ànd ak yéen émission yu am solo ak invité yu am solo. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصايات الأبرار بخير معجزة بان لحسن خير يجود للجواد بالديان وصايات الأبرار خير معجزة بان بالديان